peñuma saar fukk bi loolu amee ñu jox ma nattukaay bu mel ni yet ne ma jógal natt kër yàlla gi ak saraxalukaay bi te waññ ña fay jaamu yàlla waaye bàyyil ëttub bitib kër yàlla gi bu ko natt ndaxte jébbalees na ko ñu dul yawut te dinañu nappaaje dëkk bu sell bi diirub ñeen fukki weer ak ñaar dinaa may sama ñaari seede yi ñuy wax ci kàddu yàlla sol ay saaku di torox lu diirub junni ak ñaar téeméeri fan ak juróom benn fukk ñaari seede ya nag ñoo di ñaari garabu oliw yeeg ñaari làmp diwlin yi taxaw ci kanam boroom suuf si su leen kenn bëggee def lu bon saafaraay génn ci seen gémmiñ daldi lakk seeni bañaale te ku leen bëgg a def lu bon noonu lay war a deeyee am nañu sañ-sañu téye taw diirub fan yi ñuy wax ci kàddug yàlla am na ñu it sañ-sañu soppi ndox yi deret te wàcc ci kaw suuf musiba yu nekk saa suñu ko bëggee bu ñu noppee seen seede rab yu jóge ci kàmb gi dina leen xeex daan leen rey leen te seeni néew dinañu nekk ci pencum dëkk bu mag boobu ñuy wooye ci misaal sodom ak it misara fa ñu reyoon seen boroom ci bant te diirub ñetti fan ak genn wàll bépp réew giir kàllaama ak xeet dinañu seetaan seeni néew te duñu bàyyi kenn suul leen waa àddina dinañu bég ci seen dee di ndokkelente ak di jokkalante ay may ndaxte ñaari yonent ya lakkale nañu waa àddina waaye bi ñetti fan ya ak genn wàll wéyee xelum dund jóge ca yàlla solu leen ñu jóg taxaw noonu tiitaange gu réy jàpp ñi leen doon seetaan ñaari seede ya dégg baat bu xumb ci asamaan naan leen yéeg leen fii noonu ñu yéeg asamaan ci aw niir seeni bañaale di seetaan ca saasa am yëngu-yëngub suuf bu mag te benn ci fukki xaaju dëkk ba daldi màbb juróom ñaari junni nit dee ca yëngu-yëngub suuf ba te ña ca des tiit daldi màggal yàllay asamaan ñaareelu musiba mi wéy na ñetteel baa ngi nii di ñëw